jël li nga xamante ni mooy sunu lamb door ñu gis Malick Niang depuis 2007 premier juin 2014 ba léegi diggante ma Ama Baldé laalewul loolu lan la waaw écurie Yoff moom pour man man lu ma te defil ñu ñëpp ay élèves lañ nekk si benn école di jàng bëre di jàng dóor di dem di compétir yi ndax drapeau suñu drapeau dëkk man pour man te defil yooyu noonu ay kii rek ñu ñu bëgg ay rival ñoo koy ñoo koy def seen xel quoi su may rakka lañ seen seen nañ ma cër bëgg naa leen te yàlla rek def waaw gëj a bëre moom yàlla moo koy def si bëri am na saison yoo xam ne da ngay bëri ay 4 combats wax naa la ko sànq am na saison yoo xam ne benn combat ngay bëri am na saison yoo xam ne doo bëri wërsëg la nag quoi wërsëg nag jullit da xam. mais sa yi nga xam ne ñoo nekk nga ñoom na ay adversaire yoo xam ne te ni bëgg nañu ko moom moo leen bëgg di yóbbu feneen lan nga ñu ciy wax. non bëgg naa leen sax mais xam nga yow sa sa rajo bi xam nga doo dem. la loxo nga dugg si cours des grands nga échec da war a redoubler waat même bu dee noonu la boo demee compo soo admeewul da ngay redoubler waat wala nga nekkaat classe bi nga nekkoon. mel ni daal fi mu toll adversaire yi nga gën a visé booy ña booy booy booy ña dëgg parce que bari nga koy wax ci moom trop. waaw si la bokk dama ko gis muy muy muy muy sonal koo xamante ni li mu def si lamb moom kooku ñi mu daan moom ay champion lañ xarit bi sama dara mais li mu def la def lay jugé quoi xawma nga sax bu dul si géew mais est-ce que pare nga pare nga tey pare nga ren pour tooyal sa di dem Amérique ay entraîneur di fay ay lu di ñëw yaa ngi rek loolu soo bi nga xamante ni ci la ñu dugg saison keneen keneen ku ma am baax na man booy laa comme ñoom dama teel a bëri rek dama teel a bëri mais ab booy la ab booy laa comme ñoom beneen booy bu ma am baax na moomul booy booy boobu tamit mamaari beneen booy baax na yeah kaddu yu mujj yi lan la ñëpp di gërëm ñëpp di ñaax écurie Yoff gën a góorgóorluwaat di féliciter suñu président yi xam naa ni président ak staff bi ñu am bu ñu leen joxoon bi li maire bi liggéey dinañ liggéey ñu ngi gërëm maire bi sànq ba Reug Reug nuyu naa. waaw fay naa la bu wax monsieur Bilaye mu ne seen naan la bisimilah rahmaan rahim ginnaaw bu sant yàlla julli seneen dëgg di ñaanal sama papa ak sama tante yal nañu yàlla xaaral ci leen fi daw si di ñaanal sama yaay yal nañu fi yàlla bàyyi ba si kanam kanam. Reug Reug tey ku ne xam na ni làmb am na Cheikh Fallou lig ne ko laay ci biir kaso waaw xam nga. nañu ñaan rek ñaan nañu man di ñaan suñu papa euh, Macky Sall na ñëw jàppale làmb ndax boo xoolee benn pion bi amoon buñ ko bëggee làq rek day xaw a mucc si làmb kon dañuy ñaan ñaan rek nañ man kon ñu ngi ñaanal suñu papa euh, suñu papa Macky Sall mu dimbali lim ñu ko laaj ndax bu ko dimbalee rek dimbali na askan wi yëpp na tamit axlu làmb waaw. rek sa diggante ak Bombardier fu mu toll sori na jot ngeen avance yi. non jotaguñu avance nag mais euh, jotaguñu avance mais ñun d' accord nañu promoteur bi waaw xaw ma nag moom moom promoteur d' accord nañu wala d' accord nag seen kanam lay leer quoi incha allah fii ak deux semaines wala fii ak maximum trois semaines incha allah. dafa aay ci ponkal mais est ce que ponkal moo mel ni Bombardier liquider ko yomb na. waaw avant tout sax dañuy dañuy jaale Pape Dia di jaale tamit waa Sénégal yëpp di ko ñaanal yàlla na suuf si kawam ak papa. Euh, sunu papa sunu papa eh, eh, kii nu mu tuddati du du du jaay kas sekk du sekk ñu ngi koy ñaanal yàlla suuf eh, su ko ndax sunu papa la mën na maa soog njabootam ñàkk ñu làmb moo ñàkk ndax da doon dugal làmb kon ñu ngi koy jaale waa Sénégal yëpp surtout waa làmb di ko ñaanal yàlla suuf su ko ak sunu benn rak sunu benn gaañ boo xam ne ñu Fodé waaw Fodé ñu ngi koy jaale waa jàmm gën ñëpp di ko jaale tamit Siteu waaw na daal. daal xale gaañu teel a dem mais yàlla suñu borom ku mu soxla rek day dem tu vois loolu la ñu ngi koy ñaanal yàlla suuf oyof si ko am si barki Seydina Mouhamed waaw. rëg-rëg bombardier da d'accord rëg-rëg force am mooy punkal mais est-ce punkal mu toll ni bombardier liquider ko yomb waa xam nga moom champion la moo fi def lu kenn deful doon fi fois waaw kon bu ma mayee sens day dundal lamb rek ndax bu ma mayee sens amul lenn lu mu siy gagné moom mooy maanaam day dundal lamb xam ne làmb moom moo ko ñor tu ngi koy ñaanal nag yàlla na yàlla defal jàmm di ko wax lamb la quoi waaw. combat la la daal kenn ku ne yàlla suñu borom daam lu mu lay may ñu dañuy mën a mboot yi ñu dañuy man leneen ak leneen man yàlla suñu borom dama may ma bërëb ma mën a bërëb poids lourd ndax yàlla suñu borom moom moo koy may kenn ku ne yàlla suñu borom daam lu mu la may waaw loolu la quoi. neefam waaw loolu moom xaw ma nag luy xew suba. yaa ma dégg xaw ma luy xew suba yàlla suñu borom moo xam luy xew suba mais lamb waaw c'est que le meilleur gagne quoi. attaqué mooy fooram. xeex mooy fooram. ñoom nga tey tey jii lamb bu doonee sa métier hmm? lamb bu doonee sa métier looy ñaan yàlla pour doon roi des arènes ngay ñaan yàlla man loolu laay ñaan yàlla doon roi des arènes waaw yoon bi gudd na bëri nay xaaxaam trop mais dañ koy affronter incha allah. est-ce que daal ci combat bi du dañu tëbal rek la du tëbal non si boo xoolee la ko fi dese bëreetul du tëbal. te xoolee bombardier kenn amul kenn ku ko ñibbe ci waaw mën na ñëw bëgg ka affronter mais du tëbal waaw voilà loolu laa bëgg a wane incha allah waaw ñu ngi si baax incha allah yàlla baax bu soobee suñu borom na combat bi taxaw rek incha allah mën na ko la see wax man na ko ma la see wax dara mais nañ ñaan yàlla combat bi taxaw rek incha allah bu taxawee après nga ñëw naa ne ñun ñëpp benn lañu waaw à part la ñun ñëpp benn lañu quoi du noonu lii bu xewee c'est normal lii lenn loo xam ne dañ koy gagné ci biir compétition yi ñuy def par saison yàlla yoof la ko jagleel donc ñu leen di jaajëfal. prochaine fois yàlla nañu ko jox sama équipe rek incha allah. waaw mu mel ni bi nga yëgee initiative initiative bi nga xamante ni suñu lamb jël na ko mu di organiser suñu lamb ban yëg-yëg nga si am en tant que leader di grand champion. waaw. ji la. tey laa ciy doog a tew yaakaar naa yaa maa ngi doog a tew tey. mais wax dëgg yàlla équipe bu sañoon mu dugg sa kër man dama ñëw fii dama ne lii yàlla naa ko gaañ a def incha allah te ma gën a motiver pour sama équipe ma gën a pousser mu mën pour sama équipe jël ko prochaine fois dinaa ko def incha allah ji ko bawal. yaakaar naa lu am solo la. mais à part loolu mënuñoo ñàkk a ñëw ci li nga xamante ne mooy Tapha Tine parce que si ki ñu la gis nga sëkk depuis premier janvier deux mille dix huit nga def année blanche wala ci yow la wala si adversaire la non année blanche moom xam nga mbir bu sañoon doo ko def mais moog suñu métier bi moo am loolu moom du gan du gan ci suñu métier daal noonu lay demee saa su ne mbir yi xam nañu promoteurs yi xam nañu sant yàlla la quoi. kon mérité na mu mel ni Tapha Tine gisuñu ko mu am combat ndax ñun promoteur yi ñoo koy demal sargal Fanta Ñing ndax ku nekk xam na ne Santa guddee na bëccëg yàlla baax na daal xëy na ku yàggul dara combat Tapha Tine macha allah ñu koy jaajëfal aussi mënuñu xam adversaire bi ban la bi ñu koy demal fàttewuñu Diony Kaye ñu gën ko xam ci Fatma Gueye Diony moom la demee daal voilà c'est ça jarul sax ñu koy ñaanal ñu ko jàll promoteur bi bi waaye aussi Khalifa mi nga ne aussi moom kenn ku nekk waaw mais xam nga loolu moom promoteur bi la mu ca wax leeral ko ca yaakaar naa leer na ci boppi Sénégal yëpp man pare woon naa ko mu pare woon la xam nga def li nga xam ne mooy liggéey yàlla def na nekkul lu am ko dañuy delloo lépp ci loxo suñu jabel mbëgg rek ñu leen di jaajëfal bu baax gis nañu aussi bu amoon lu mu wax moroomi champion nga xamante ne nekk ci làmb ak li nga xamante ne làmb ji demee lan lay doon waaw di leen wax ñu gën a góorgóorlu rek xam nga gën a bàyyi làmb xel te xam ne lamb naa ne na ñoo ko mën a defar ak promoteur yi kon xam nga delluwaat ci terrain bi daal xam ne métier boo xam ne métier la boo xam ne ñu bëri def nañu ko métier te Sénégal nañ ko gën a rafetal daal voilà léegi gis benn boo xamante ni muy dugg ci làmb na dina sooxal làmb muy MMA lan nga ciy wax waaw sant moom sport la ndaw Serigne Mbaye Diène madame Ndiaye Ndeye Demba Diène benn benn sport kii kenn la ci man discipline yi bëri na ay xale lañ c'est normal ñu def day discipline discipline loolu lool loolu du ci dara ñuy féliciter rek rek ñu nga xam ne moo ci mujj jóge ak ñoom Bombardier ak ñoom Sita waaw ak gars yi ciy waaja a dugg yëpp ñu ngi leen di encouragé di wax sport la ndaw a koy def xam nga boo tolloo benn aas bi mën a toog mu mel ni duggoon nga ci am ci combat combat bi mujjee yàqu mujjee wul sotti fan la yàqu. waaw man maay waroon dem sapon mais comme gars yi na mooy wax sapon yi bu ñuy sélectionné du ñu xaar. Mm, te xam nga ji mu waroon dajal d' accord woon 100 pour cent. fekk na mën naa ne loolu la eh noonu la demee daal. mais kaddu yu mujj boo amoon yoo ñu dénk lan lay doon. waaye di sant yàlla di la sant di sant ñëpp di wax di sant waa Yofa ah, di wax na lii neex na dama waxoon laa waxaat rek dama dugg sa vraiment avec lu neex na neexay boo xam ne nii yàlla na ko sama équipe jël année prochaine incha allah te loolu daa ñu bëgg sama tax incha allah pour nga bawul lu teew ci biir lépp. non loolu moom du gàmm maanaam séeréer muy bawul bawul ci biir lépp moom ñooy bokk ndox meeg lépp. maanaam noonu la war a demee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax nga xam ne ñoom fii seen dëkk la def nañ li war a def man bu ma ñëwee dalal nañ ma jàmm ak salaam neex na macha allah jaajëf jaajëf ñi nga xam ne ñooy waa suñu confrère waa Leewtoo TV ñoom tey dañuy ñëwoon teew ci bés bi euh, ginnaaw bi nga xamee ni dund euh, nañ ñi nga xam ne dund nañ fi ñu ñëpp ban yëg-yëg nga am tey. waaw yëg-yëg bi may am rek mooy contentement di kontaan tamit waa Leewtoo TV li ñoom mooy ñoom Babacar ñoom day Kouma ay Aïcha Faye ma leen di nuyu di nuyu seen directeur Pape Thialis Faye di wax maa ngi lu seen liggéey di wax affaire yi noonu la yàlla na jëm si kanam di wax tey nag vraiment mu nekk journée bu spécial pour ñun pourquoi mu spécial pour ñun parce que c'est la deuxième édition di sunu lamb d'or 2019 daaw rek écurie Dóor moo ko jëloon ren écurie wuyu si ñu Tapha Tine si ñu donc mbër yooyu yëpp ñëw tey wuyu si ñu donc lu dul lu di am satisfaction di wax gàcce nga laama écurie parce que c'était pas évident plus plus de cent écuries nga ñëw classé si premier je pense que loolu loolu lañ leen di wax gàcce nga léegi lan moo des mooy jéem a conserver le te conserver le titre nekk na loo xam ne euh, du nekk lu yomb daal parce que léegi sunu làmb doon ñëpp ko bëgg jël ñëpp ko bëgg yóbbu seen seen seen moo tax conserver titre ci loolu est-ce que mën nañu xaar yeneen édition yi nga xam ne daanaka équipe bu ko bu ko da ngeen def fekk ci feefu mën nañu xaar benn jour euh, maanaam cérémonie bi ngeen yóbbu ko ci maanaam salle yu mag yi man ni grand théâtre pourquoi pas wala Sorano ngeen defee ko waaw ñun moom li ñu gën a bëgg mooy sincèrement équipe bu ko gañee ñu defee ko sa fief bëgguñu ko def Sorano bëgguñu ko def grand théâtre bëgguñu ko def si ay restaurant si place lañ ko bëgg pour impliquer a génn Euh, dafay nekk affaire VIP trop mais tey ñëpp la si boole xale yu ndaw yaa ngi fi mag ñaa ngi fi ñëpp a ngi fi donc loolu lu ñu neex na ñun concept bi la ñu bëgg premier écrit bi ci biir goxam. kon daal concept bi mooy ku si nekk li nga xam ne mooy sa ndam lu fekk la sa gox sagal la. Ah, waaw loolu moom la ñu bëgg mooy saxal loolu mooy li ma waxoon rek li ballon d'or mondial mel si àdduna bi loolu la ñu bëgg sunu làmb d'or mel ko ci kaw si si si làmb ñu koy pérenniser ay édition bu nekk ñu organiser ko. en Euh, ak fi lamb ji toll ak saison bi tey ban jàngat ngay def ci situation lamb ji nii. dégguma ma ni tey ak euh, ouverture saison bi ak situation lamb ji fu mu toll nii ban gis-gis nga ci am. waaw gis-gis bi moo si am mooy lamb euh, am na benn coup de boo xam ne dal na ko benn coup de sax mën naa wax parce que ak arrestation Luc Nicolas bi parce que kenn xaaru ko woon nit ñi dañu yaakaaroon départ d'un bon avec un combat Modou Lo Ama Baldé gis nga lu si balaa juillet sax mu génn ñu allégé allégé allégé kii bi peine bi ba nga xam ne dina génn mun a ñëw tëgg combat Ama Baldé Modou Lô mais fu mu toll ni mën naa wax ne làmb ji doxul parce que VIP yu bëri amuñu combat. Euh, ba doon euh, jox message boo xam da nga koy jëgleel ak lu làmb rawatina promoteur yi ak yi lan lay doon. waaye li ma doon rek mooy ni ñu gën a waxtaan gën def état état général de la lutte gën a waxtaan parce que làmb ji doxul nu comme il faut bu nekk chômeur yi day bëri te chômeur bu baaxul si làmb. kon Leewtoo TV suñu confrère yi ñoom ñu ngi lay sant di la gërëm. waaw maa ngi gërëm waa Leewtoo TV yëpp di leen sant di leen gërëm ci seen ñëwaay. jërëjëf waaw.